jàpp na ne réew mi it war nañ ci mën a taxaw léegi-léegi yaa ngi ma wax Malick Gakou du ñàkk également ñoo am ko en ligne moom it mu mën a joxe message am de même yeneen candidats yi nga xam te ne dañ leen am ñoom it au bout fil euh, euh, sa jàngat ci yooyu yëpp yu mu. waaw euh, PNB ay croissance hmm. ak. Hmm. réew buy dox. dafay bokk sax si ay identité comme tey ni ñuy amee gaz am pétrole koom-koom boobu euh, bopp Sénégal bu nekk na la lan lañ dundee yooyu ay ay jumtukaay la yoo xam ni c'est des des instruments yu ñuy nattee mm. réew euh, dundam ci wàllu économie beneen bi rafetlu euh, Serigne Mbuub mu dugg ñëw wax ñu xaar keneen bu ñëw wax ñu ko rassurer ko ni que man xaw ma kan man sama bopp laa xam mm. suñu rôle nekkul di orienter kenn. parce que mm-hmm. pour ñun nit ku nekk am nga esprit de discernement sénégalais bi mooy xool ku ko doy. mu mm-hmm. fal ko. Mm-hmm. l' ñoom ñëpp dem nañ sur même pied d' pour man sax même pied d' égalité boobu après dinaa ñëw ci Bassirou Diomaye Faye. ñu waroon ko libérer bu yàgg. Euh, beneen bi ci profilam. ça m' du point de vue d' abord c' est un doomu réew mi la. il a fait ses preuves parce que man dama doon faral di wax man management laa jàng mais tey. Mm. Euh, Sénégal gis nañ fi Bawol Bawol bu mun a yor entreprise doxal ko yore su ma mbokk tukulóor yi liggéey yoral doxal du dëgg mm. euh, mu am moom fu mu jógee loo xam ne li ñuy jàngale ci école de management yi war nañ ko mun a wane comme un exemple comme un modèle maintenant euh, ñun toog lañ fi kenn parce que man damay faral di wax naan Macky Sall joxuma café Sonko suukaru ko <laughs> moom mii def ko vanille donc pour man sénégalais bi lañu amal lu ñuy confronter li mu def c'est important mm. et d'ailleurs programme li mu wax am na solo parce que loolu mu wax ci langue national Cheikh Anta moo ko njëkk a wax. Mm. Cheikh Anta Diop da doon wax sax ne làqu jaamur mën nga cee macc tàngal waaye munoo cee tàqamtiku. Mm-hmm. kàllaama jaamur. Mm. mën nga cee màcc tàngal waaye mënoo caa tàqamtiku. Mm-hmm. parce que même dans la transmission de la connaissance li ëpp solo xale bi ci la mu nàmp te di ci wax. Mm. boo ko jàngalee ci làq boobu du am difficulté. boo ko jàngalee ci beneen làkk il faut mu xalaataat ma doon joxe exemple sax bi ñu def CM2 dañ lay wax rédaction. Hmm. comme lan moo xew kër gi ngénte am na baptême ngay wax laax nu ñu koy waxee ci français di wër moo bi alors que bu doon suñu yaay kàllaama donc yooyu euh, parce que pour ñun la langue c'est c'est un moteur culturel. Hmm. donc c'est hyper important c'est une question d'identité yeneen yu mu wax ci mbay aussi am na solo donc ñu ngi ubbi suñu ay bunt. maintenant ci question bi nga ma laaj comme danga ma ko laaj noonu que man aussi damay bëgg. Euh, prendre tout mon temps prendre not notes regarder tous les programmes comparer ko xool programme bu nekk lan laa gis loo xam ne atu ak tel mën ci am jàngat parce que si sunu rôle la la bokk loolu nga wax dafa indi woon débat euh, d'ailleurs Abdoulaye Wade dafa waxoon ticket présidentiel mais bi ñuy lire ticket présidentiel bi li nga ëpp li ngay gis nañ la wax le président ne le vice président na peut pas le vice président na peut pas moo ci ëppoon vice président mooy koo xam ne dañ ko délégué hmm. pouvoir bi yëpp président la nekk donc ci ndigal ak li ko président sant lay def mais bi ñuy génnee loi boobu ñu tuddee woon ko ticket présidentiel mm. dañu waxoon ni président bi ak vice président bi du ñu bokk mm. maanaam du ñu bokk ndey ak baay mënul nekk njureel mënul nekk et cetera maintenant euh, dafa am loo xam ni dañu am lu ñuy wax système politique mm. système politique mooy réew yu bëri ak seen système politique nu mu wutee ñun système politique bi ñu am c'est un système politique français. Hmm. Euh, bu demee États-Unis seen système politique ñoom dañu am li ñuy wax régime présidentiel. seen régime présidentiel dafa am président bi dafa am ay pouvoir. Hmm. ñu dooleel ko mais dañu am ay mécanismes yoo xamante ni teg nañ ko comme seen congrès ñoo xam ni am nañ beneen pouvoir parce que il faut ñu dem ci principe boobu ngay wax il faut qu'un pouvoir arrête un pouvoir. donc ñoom ci seen mécanisme dafa bokk ci ñoom. Hmm. cest à balaa ñu dem élection xam nañ ni euh, Barack Obama ak Hillary Clinton ñoo bokk benn liste bu ñu jàllee Hillary Clinton moo ko war a nekk wala Joe Biden ak diw parce que ñoom seen système politique loolu la ñun ci suñu système politique amuñu woon loolu parfois ñu méngale ñu système semi présidentiel parfois ñu méngale ñu système parlementaire mm. donc c'est un débat de système politique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 il foo nga comprendre que mbir mi du Bassirou mbir mi sonkoo la. Sonko la mm. bu waxoon nii sëñ Astu Mbàkke moo ko doy. Ah, bu amoon fukki taalibe mbooloom dana doolee ko parce que Sonko moo yore mbir mi. je disais que li nga xam ni sax moo sauvé projet bi wala dara question de générosité. tout à parce que tey deux mille dix neuf PDS amul candidat. ils avaient refusé wut benn.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 ma dem man xam nga xam nga moom béykat moom non on wax nga moom comprendre la. comprendre su ma comprendre woon. moom dafa déplacé sama curseur. waaw da yow yaa def exprès. waaw xaaral yaa def exprès.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 Ousmane Sonko. c'est ce que j'ai posé comme question. alors sëñ Mourass. d'accord ànd ak yéen muy patriote yi li li nekk seen xel mooy kañ la ñuy génn ñoom ñaar. dañoo war ndax am Basirou war naa bu yàgg. Hmm, xam nga waaw. yow ci gars yu baax yi seen débat bi. waaw muy li ñu bi ñuy wax. <laughs> dualité boobu. gis nga tay tay bu Sonko génnoon Diomaye génn. lii nii du nekk débat. du nekk débat. parce que du nekk débat mooy. gis nga débat bii.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 Euh, euh, président Diao ñu ngi lay nuyu bëggoon a xam fi ñu toll nii parce que on est à quelques heures de l'ouverture de la campagne lan mooy say message ak nan nga nar a doxalee campagne bi. waaw maa leen di say maa ngi maa ngi maa ngi nuyu ñu nga bokkal plateau bi je pense que yéen ci plateau. damay soog a jógee. Euh, réunion sama comité oui après nag euh, ñu waxoon ma ne vous aviez une édition spéciale. au niveau de Sans Limites. donc ma leen di ma leen di nuyu yéen ñëpp. di tamit ñi nga xam ne ñu ngi ñuy déglu. Hmm. donc euh, suñu wàllu bopp bu subaa bu soobee yàlla. dañuy nekk Kër Massar. Hmm. terrain Yékini. yaakaar naa xam ngeen ko. Euh, parce que tamit euh, suñu programme niñ ko ficelé ci suñu wàllu priorité. Hmm. noonu tamit lañ ficelé suñu ay activité euh, donc ñun dañoo jël jigéen yi jox benn place bu centrale dans le développement socio-économique de notre pays. Hmm. donc bu ëllëgee bu soobee yàlla c'est une communication qui est dirigée. Hmm. envers les femmes. li li ko waral mooy bu ñuy xalaat toujours jigéen Sénégal. boo ko seetloo bu ba on va voir naka la ñuy régler les questions d'inégalité mu mel ni dafa am lu ñu leen war a defaral daal. Hmm. lu ñu leen war a may. alors que euh, da ngay xool le potentiel qu'il y au niveau des femmes. Mm. et c'est ce potentiel là qu'il faut valoriser pour en faire d'abord des acteurs économiques de référence. Mm. et ensuite leur donner place bi nga xam ne moom moom moom la moom dans le dans la sphère politique. Oui. donc dans notre programme de gouvernance loolu dañ ciy insister Oui. président bàyyi waale xel bu baax parce que duñ la dégg bu baax waaw nga bàyyi waale xel oui voilà c'est bon. bi moo xaw mais c'est bon c'est bon on vous entend c'est bon.